masawa is jaa yamtaaru gis nga yii ñuy xalamtee nit ñi doxul Seydi Hadji Malick am na lëpp gor jak saaw sëñ Touba am na lëpp Touba gale looloo tax mu gor ko boobu mu ngi Jurbel maam Ablaye Niass am na lépp gor Saalum Thierno Momar Saïdou Ba am na lëpp moo indi Daaka amari ndaak sekk am na lëpp dem jihaad yi Cheikh Alhaaj Omar al Fuuti yu ñetti téeméeri nit ak fukki nit ak ñett la daan dundal par jour par jour 313 personnes par jour bool yi nii lay tege yàpp soos ceeb lëpp lay togg kulla yawmin Cheikh Alhaaj Omar al Fuuti bër bu set loolu la loolu lañ xeetam mi daan dunde terewul da doon liggéey xam nga lu doon liggéeyam raw ay buum di jaay gisuloon photo bi yooyu muy def nii ci loxo bi mooy buum yi mu daan jaay moom la daan dunde loolu mu teg ci kaw bopp bi moo doon kaamil bi kaamil bi mu daan wax fee lay teg ci kaw bopp bi te du daanu xool leen foto bi gisuleen kaw bopp bi lim ci teg noonu mooy kaamilu alquran bi la mushaf diiru jihaat ji lu ko neex lay def te kaamil bi du daanu booboy premier mu'jiza takk ko ci kaala gi de dafa kaalawu ba noppi teg ko ci kaw kaala gi te kaamil bi du daanu jamais bu bëggee waxaf rek wàccee kaamil bi liir biñ ko laajee mu ne kaamil moo war a féetee lépp kaw essayé ko ba nga jël kaamil yenn ko bul sëgg de ku ko ci mën a roy bul sëgg man maa la ko wax ah dem leen ngeen xool photo bi photo baa ngi nii kañ ngeen di gis mooy photo original boobu ngeen di gis li ci kaw boppam bi noonu kaamilu alquran la mushaf la nu mën a def du daanu te ci mu ngi ci kaw fas wi su demee ba julli jot mu làmb poos bi génnee laxdari yël yër baabu sax wi xool ko ba mu yegg mu tëj dugal ci poos bi kabaar gaa yi topp ci kaw bés ñu laaj ko lu tax mu ne bañ a juum ci julli baabu sax wi te koo xam ne téere yëpp bu lakkoon nga bindaat ko fonk jullee tax mosul julli benn waxtu te génnewul téere bi yër baabu sax wi boo juumee ci julli noo koy réparé yër ko ba pare dugal ci poosam door a ñu ne lu tax mu ne wóoluwuma pexem seytaane mën na ma juumloo ñun feraguñ ijji waaw ah, waaye nit ñi dañuy caaxaan te xool leen li ma leen wax ci Cheikh Al Hadj Omar ànd ak loolu yépp laxdari mu ngi ci poos bi baabu sax wi rek lay yërit nag mooy ku jamat ci julli noo koy defaree mosul julli du tisbaar tàkkusaan timis gee fajar lu dul yër na ko door a kabaar jihaat ji lu métti métti mu ci kaw fas wi kaamil bi du rot bu julli jotee mu yër mu ngi mu ngi joxe directive ci gaañi beneen bi ci des bi gën a garaaw nag non Cheikh du nit non kooku du doomu aadama Cheikh kooku du nit li jihaat ji di métti métti métti mu ngi ko booleeg di taalif ci kaw fas yi taalif fooy bu jeex mu teg ci ci mbuus mi gisuleen leen mbuus mu ci wetam fooy bu jeex mu dugal ci mbuus mi boole kook taalif mu ngi nii mooy foto bi lii ngeen gis nii mu gàccoo mooy buum yi mu daan jaay lii ci kaw nii kaamilu alquran bi la kurus gaa nga ne yet wi nag mooy yetu mu'jiza bi moom kii bu ma leen waxoon yi mu daan def yëpp ngir àddina tukki fii lay wàcc léegi ne ma ku la ko wax loo billaahi wal kitaab am na loo xam ne su ma bëggoon mu ñëw léegi ma wax ko mu ñëw bilaa shakkin nit ñi xamuñ Cheikh Oumar xamuñ Cheikh loolu rek a ma métti xamuñ ko maam Ablaye Niass rek a ko xam moom mi daan wax ni Cheikh Tidiane Cheikh Oumar Fuuti yu mooy Cheikh Tidianeam nit ñu ñuul ñi akay dëkk dëgg foog nga xam koy Cheikh Tidiane yi nag muy Cheikh na Ahmada Tidiane yi radiyallahu anhu nee na Cheikh Oumar nag mooy Cheikhu na Tidiane yi nit ñu ñuul ñi yii yëpp maa leen koy démontrer defal par par pièce ngeen xam ku ci xamoon li ñeme yàlla rek waaye ñu ko ci xam bari wut de ah waaw kañ ñi ñeme yàlla rek nii nga ko gisee mu ne ñum rek waaye xamoon la xam loolu ci kaw kaamilu alxuraan bi la moom la daan waqafe te du daanu mukk gis nga takku ko de du gis nga moo tegee ci kaw kaala bi comme acier bu ko ci tegee rek comme acier mouvement bu mu mën a def du daanu biñ ko laajee mu ne kaamil la war a féete lépp kaw moo tax ma teg ko ci sama kaw bopp bi yal na yàlla dolli sutura nañ muñ ba ëllëg insha allahu taala nañ jaamu yàlla liggéey ba ëllëg insha allahu billahi buñ ko defee bu ëllëgee saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuuna ca la ñuy bokk lu mu ca teg fii jannaati naim fii jannaati naim yaa kii du nit Cheikh Umar barki rasulillah kii bokk ci laa ilaha illallah moom moom ci boppam rek kéemtaan na ni mu doon dundee rek la doomu aadama mën mënta dundee jamais te ñoom bay di sàll ñii seen université yi nañ xool seen archive yi yafa ne yëpp dëgg la yi ñuy wax ci Cheikh Umar moom bu demee na am itte bay di na am Cheikhouna Tidiane la kenn xamul mooy lan cheikhu man fuuti yu cheikhu tiijaan rek la ragal bañ na ko ba boo ne cheikhu na tiijaan yi mu ne kalal ji boo ko waxoon fukki yoon mu wax ko fukki yoon feek noppi woo du noppi sëñ Abdou nee na buñ bëggaan a xam sax fan la nekk ci néegam yi ndax téeméeri néeg la amoon ndax bañ ko ku ko gis rek maanaam ni mu tabaxee woon këram dangay ngay dugg couloir bi génn néeg bi génn néeg bi génn téeméeri néeg dangay taxaw ci benn néeg rek ne cheikh ne cheikhu na tijaani mu ne këlal di nga dàkk fi baat bi nekk soo demee ba xamoo benn néeg la nga ne ci cheikhu na tijaani mu ne këlal ji ba nga xam fi mu nekk rek ñëw nuyoo mooy yëkk wu mag wi waaw këlal ji mooy yëkk wu mag wi maa ko laajte bañ wax ma ko ndax loolu la ñor da koy laaj laajte maa ko dégguma tukulóor de waaye maa ko te bañ wax ma ko su yéen tukulóor yi ba du noonu la mooy yëkkwu mag wi <laughs> ah laa ilaha illallah muhammad rasulullah yal nañu yàlla taas ci barke waaw yal nañu yàlla taas ci barkeem taas ci barkeem Cheikh Alhaaj Omar wallahi am am na yu ma ñemewul a wax ci moom am na yoo xam ne maag Thierno Bachir rek a ciy waxtaan yàlla seede na ko léeg-léeg dañ ciy waxtaan ba yaramam tàng maa la ko wax ku du tàqali ko Cheikh Umar Fuuti abadan boo ko bëggee gis mooy Thierno Bachir benn laxza muy tàqali koog amul benn laxza nag bu muy tàqali koog maamam amul mooy seconde amul daa iman mu ngeeg maamam ah loolu neex na dégg neex na dëgg seen portable yi bu ngeen xesee am whatsapp bi di ko balancer ci ñaata numéro nga ko mën a balancer benn ojo bi ñaata nit a ko mën a jot benn image bi ñaata nit a ko mën a jot jeex na Cheikh Omar dafa am ci jëmmam yi boo xam ne fu ko neex mu installé ko bàyyi ko fa am na ñetti téeméeri jëmm ak juróom-benn fukk ak juróom-benn 366 jëmm la Cheikh Al Hadj Omar am ma wax la ko tey nga dégg 365 yi lay doxantoo benn bi la sax dakk ca kaaba ga du fa jóg benn bi moom abadan ila yawmil xiyaamati mu nga makkatal mukarram du fa jóg yi ci des nag la partagé fu ko neex ci àddina bi te yooyu it day toxu ko neexee bi mu bàyyee senegal bu subaa mu toxu dem Mali te bi mu bàyyi Mali ñëw senegal bi mu bàyyi Sénégal dem Gambie <laughs> Cheikh Omar di nit ah moo xam yaa xam boog yow ah Cheikh El bokk ci parce que wóli yu kenn dañuy def tasarrufaat ma lay ko nit ñi dégg pour ñuy seetaan wóli yu bu yeggee ci euh, dafa am wóli yu simple benn tuutiwu ci nag. ak waliyu kumal am na wali yoo xam ne mënuñu def tasarrufaat maanaam mënuñu multiplier seen jëmm wali yu bu ko mën nag bokk na ci wali yu mat yi am wali yoo xam ne mënuñu ko ñooñu yeggaguñ ci grade boobu am wali yoo xam ne mën nañu def tasarrufaat waaye mënuñu naaw nawle yoo xam ne buñ toogee yow mën nañu ne fëy dem seen yoon te doo xam fuñ jaar am na ci bi gën a élémentaire mooy toog fii di wax ak yow fekk dem nañ bu yàgg nag ñu ngi añ ak yow di reer ak yow di naan kafe di gerte di xàqataay fekk dem nañ <laughs> ah waaw ñu ngi yow di naan attaay di lekkandoor ak yow di xàqataay fekk dem nañ dem nañ ca malaw laa la ñu ngay chaise ji feneen ah déggu leen Serigne Cheikh wax ko ci benn waxtaanam mu ne nit ñi di la sang nga di leen gis ñu ngi lay sang nga di leen gis ñu ngi lay jullee nga di leen gis ñu ngi lay dugal ci kan ngay nga di leen gis ñuy suul nga di leen gis ñuy dem nga di leen gis ba ba ñu yegg seen kër maratib la ci martaba yi Moussa Wade nettali na ko ci samedi conférence am bi ngeen dégg Chérif ay dara bi nekkoon ndar di xaritu Serigne Alpha Xumma Serigne Xumma tuddee na soxnaam Fatou Wade doom Fatou boobu mooy mbokki ñoom Moussa Wade ak Fama Wade mi Serigne Alpha Xumma tuddee na ko doom Fatou ndax bëgg Chérif Zakaria Chérif Zakaria génn àddina waa kër gi di yuuxu déglu leen li may wax de waa kër gi di yuuxu jigéen ñi di jooy mu jóg ñokket ne leen bu ma fi dégg yuuxu na dakk demaguma ngeen di yuuxu ñu ne ñu ne pat mu ne mu tëddaat ndar gi dem leen ngeen laajte bu ngeen demee kër Serigne Alpha Xuma xalifa am bële Mouhamad Xuma ngeen laaj ko dëgg la wala du dëgg wala Cheikh Tidiane Xuma ki topp ci xalifa bi Chérif Zakaria seen xaritu bàyyi la woon Chérif Xaasim daawul jóg fii ci kër gi moo doon taawu Chérif Zakaria wax naa leen kuy fii feebar na bëñ di ko métti mu dem ci médecin bi pour médecin bi génneel ko bëñ bi mu ŋaang rek médecin bi xam ñu tëpp tëppal tëppal mu ximmeeku ñu ne ko lu xew mu ne bi mu ŋaangee leer gi ma gis attanu ma ko ñu ne ko faj mu ne man de fajuma na dem ñibbi <laughs> Chérif Zakaria ay dara te bi mu ñëwee ci Cheikhul Hadj Abdoul Aziz moo ko boolee góor gi Ahmad Njigin mu nekk ak moom ba seen lépp ci góor góor gi Ahmad Baro Njigin këram la ñoom Chérif Zakaria ok xoolal loolu faatu ñépp di yuuxu mu jóg ne bu ma fi dégg yuuxu noppi leen demaguma ngeen di yuuxu ñëpp ne patt ndax tiit mu tëddaat yaakaar naa kenn dootul jooy de Chérif Zakaria ma wax la beneen bu gën a garaaw Cheikh Mamadou Al Fadel bi jur seex na Cheikh Saad Bou génn na àddina di ayeesi maa la ko wax ba ci la Cheikh na Cheikh Saad Bou juddu di di Cheikh mook Suwaadu moo tax ñoom ca waaw <laughs> booboo gën a garaaw Cheikh Mamadou Al Fadel dem barzaq di ayeesi jigéen ji rek a koy gis soxnaam si gën a ndaw moom rek la fi la daan aye si ndax bi muy dem daf ko yërëm ndax li muy gone te xam na ne nit ñi ñemewuñ takk soxnaay kilifa te bëgg koo lor ndax du saydatu xam na ne du saydatu naa Aïcha muy aye si guddi gu jot rek mu ñëw aye si ba soxna si ëmb ah fa la bët yem coow li ne kur ñu ne soxna si ëmb na te lu ñuy ku ko ëmbal mu ne soxna si noppil yàlla xam na yow xam nga boo lëgee yow mal am dana leer mu ne ko àttanu ma yow mal xiyaam coow li fii mu ne ko ñaaree am bu ngénte la ma ñëw toog ci ngénte li ne leen maa ko jur dem sama yoon waaye dootuma aye si yow mal am doo bokk ci samay soxna soxnaay keneen ngay doon wala nga muñ coow yi ñuy teg ci sa ko ak baat yu ñaaw yi ba bu ëllëgee nga nekk sama soxna ci àjjana te du yàq dara mu ne ko coow yi laa àttanul ay dara karaara na leer rek fii bu ëllëgee nag yàllaa koy lijjanti mu ne ko baax na coow li ne kur ci nim daal coow li ne kur ci nim pour wan la ne ñëpp a baax seex na seex saat bu bi bàyyam seex moom dal faabel ba ngeen li jot ñu ne soxna si waxal ku jur doom yi mu ne seen papa mu ñëw waxal nuñ koy tuddee mu ne seen papa léegi mu ñëw ñu ne ko bu ñu fontoo fi ñu koy bëgg dalee ci koom rek Cheikh na Cheikh sa mu euh, Mamadou Fadel ne dare ne leen maa ko jur maa doon aye si guddi gu jot bu ma fi diggati wax tuddee leen ko diw ak diw ne mes dem yoon <laughs> waaw yii boo koy wax nit ñi dañuy foog boo koy wax nit ñi dañuy foog ne ay ay léeba ki lu pen la dem leen nimzaat ngeen laaj lii may wax am na wala amul ah dem leen nimzaat ngeen laaj lii may wax am na wala amul te pourtant Cheikh na Cheikh Saad bu du sama sëriñ mais ma wax mbaaxu seex na Cheikh Saad Bou wax mbaaxu baayam Cheikh moom lal Fadal mais lu may wàññi lu muy wàññi ci sama tariqa nga yéeg ba ca Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moo mu gën a teg garaaw ñépp nag sultaanul awliya yi lu tax ñu tuddee ko ko Cerno Bachiru moo ma ko nettali ci gémmiñam martaba bi koy yéegal ci soxnaam la jóge ci soxnaam la jóge ndekete góor gi bu nekkaan ci kurusam soxna si jël benn bant wala gën na gën na gën na lay jël ba mu koy nettali kër Ousmane Diallo kii ya ngi toog Thierno Bachir moo moom ko nettali gën lay jël teg ko ci lal bi muur ko comme mooy tëdd génn dem doxi moom maanaam doxi safaan lu ko neex ñépp xam nañ ko waaye rus nañ ko ko bébés rek góor gi ne loolu dinaa ko vérifier yi muri rek gis gënn gi mu ne ah kon li ñëpp di wax dëgg la fi mu naan ah li ñëpp di wax dëgg la soxna si di ñaay fenêtre bi di dugg si mu ne ko ah kon yow ñëpp li ñu doon wax dëgg la yow kon nii nga fi nekkee diiru li ma nekk ak yow mu ne ko tey ngaa muñ li may def yàlla jox la garaat bu ko ëpp seetal loolu est-ce que kooku soxnaay kese kese na tee ngaa muñ li may def yàlla jox la garaat bu ko ëpp mu ne ko yaa sob luy sa yoon ci garaat yonent bi feeñu ko yàqazatan ne ko yéegal nañ la ci maqam bi nga doon bëgg lii moo la koy may yàqazatan ne ko garaat bi nga doon ut yéeg nga ci bés ni tey te lii moo la ko may mu ne soxna si kaay mu ñëw mu ne ko tey laa la gën a téye ah sëñ bi nañ wax waax baax baaxu nit ñi ak baax baaxu nitu yàlla yi te bañ di wax leneen te bañ di wax safaan nañuy wax baax baaxu nit ñi tey wax baax baaxu nitu yàlla yi ñépp a baax ñépp a baax koo ci jël rek mën nga wax ci moom benn benn benn euh, kii pas miracle mais euh, jëfin tasarrufaat yonent mooy am mu'jiza waaye wali yu kiraama lay am kenn ku ne ci ñoom mën nga wax kiraama boo xam ne fa uh, boo ko waxee ay taalibeem xam nga nit ñi luñ ciy ragal nga wax mbaaxu nit say taalibe dem foofa day fekk nekkuñu woon sa wërsëg bàyyi leen ñu dem yow sa wërsëg dana ñëw waaye taalibe piir du xacc foo dégg taalibe bi xacc na day fen newuloon taalibe mukk yaakaar nga ne murit saadix dana bàyyi sëñ Touba di dem feneen murid saadix laa wax de yaakaar nga ne dana bàyyi sëñ Touba di dem feneen taalibe xaqan tiijaan dana bàyyi na Tiijaan yi di dem feneen koo ci dégg bàyyi na rek nekkuloon taalibe foofu sympathisant la woon dama am sa coppati loolu gaa yi di wax lam coppati ci yow na bu ko gisul rek wacc na ko mu rot seeti na feneen fu mu coppati jeex na mais taalibe du dem taalibe du dem fenn nit ñi nag dañu ragal ne boo waxee ci mbaax mbaaxu keneen ñépp maam mi uti ko mais après nañ dem yow nga des yàlla mais waxal mbaaxam nahnu naqusu alayka min anbaai rusuli maa nusabbitu bihi fuaadaka minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama allahu Moussa takliman ah nañ bàyyi caaxaan ah nañ bàyyi caaxaan loolu yàlla ko wax yonent bi xamatuma ko di nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi mu dem ba ca biir lenu li nu sabbitu bihi fuaadaka minhum man man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama allahu Musa takliman yàlla ne ko ñi ma lay nett ni ñëpp dama bëgg sax fuwaa bi sa ngëm gi gën a dëgër moo tax ma naan la min anba'i rusuli maa nusabbitu bihi fuaadak nga xam ne am nañ may de mayuma la yow kenn nga xam ne gaa ñi nañ may de mayuma la yow kenn ngir lan li nu bi bihi fu aadaka ma dëgëral sa ngëm-ngëm minhum am na ci ñoom man yonent yoo xam ne naqsus tudd naa seen xibaar alayka wax la ko yow waaye wa minhum am na ci ñoom man lam suus alayka waxuma la seen mbir waaye ma wax la ci kenn nag wakkal la ma waxee na ah, Moussa Moussa takliman wax ju du dog wax ju du dog maa ko wax ak muusa kon su may wax ak yow gëmal ne may wax ak yow kon su ma nee sëñ Touba xamal ne yàllaa ko may su ma nee Cheikh Nassar Saad bu xamal ne mayu yàlla la su ma nee Seydi Hadji Malick xamal ne mayu yàlla la ku ci ne yàllaa la may yàlla li mu am dafa xaj ci génn kër ah nit ñi nañ bay caaxaan nag yàlla li mu am xajut ci génn kër <laughs> waaye yàlla li mu am xajut ci benn kër nañ ñu dimbale lillahi wa rasuli cent vingt quatre mille anbiya u moo am te su neexoon yàlla bañ a yónni kenn te ñépp def li mu bëgg su neexoon yàlla mu bañ a yónni kenn te ñépp def liñ bëgg su neexoon yàlla mu bañ a yónni kenn te ñépp def li mu bëgg ndax wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi moo not ñépp nekk ci seen kaw kenn newul ci kawam kon kooku lu mu bëgg nit ñi def ko waaye bu jëlee ay yonent yónni laya tax ëllëg ku bëgg a wax mu ne la min anfusikum laqad jaakum rasulun min anfusikum lu tax nga gëmoo ko woon daf doon añ ngay añ muy reer ngay reer man mënoo ma woon a gis waaye gis nga ko moom muy wax ngay dégg muy tibb di sax ngay tibb di sax lu tax li ma waxoon ci moom mënoo ko gëm waaw kon li ma doon wax ci sañ Touba lu tax gëmoo ko may gi ma defoon ci moom lu tax gëmoo ma def ko ci alaaji Malick nga gëm ko ma def ko ci sëñ Touba nga lank ne doo ko gëm yaay kan yaay séddale hmm? yàlla ne séddale woo di may séddale man yàlla ah maa kaana lahumul xiyara wallahu yaxluqu wa yaxtaaru maa kaana lahumul xiyara man yàlla maa bind may tànn tànneef newul ci seen loxo yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura te yal nañu yàlla tànnal boppam